أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق منبع الأنوار جمجمة العوالم سيد الوجود عالم السوس صلى الله عليه وسلم ورد على أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk jullit salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen mbokk Oustaz Habib Socé suñu naafila bés bi waaye gannaaw lu gën a avant loolu yëpp ñu ngi nuyu di ziar suñu xalif généraux yi di leen ñaanal yàlla yàggal leen fi may leen wér waaye di nuyu di ziar bu baax kilifa aada yi waaye di nuyu di ziar sunu euh, cousin président Samba Ndiaye Seck nekk fee ci tribunal ñu ngi koy ziar bu baax di ko wax ne ko ramadan bi nag léegi mu jeex waaw dèjà yaa ngi cinq jours fexeel muñ ko léegi mu jeex incha allah mbokk yi di nuyu baax di ziar nag képp ko xam ne rek yaa ngi topp sa émission naafila du jour naafila du jour waaye naafila plus waaw ah, ok fii mooy naafila plus <laughs> da ngay am naafila am sa nasiha am sa dénkaane ko incha allah naafila bés bi lan la démb am nga 4 rakka tey tamit yaa ngi amaat 4 rakka 4 bu ñu ko waxee yow mi déggul français mooy ñeent am nga ñeenti rakka rakka bu nekk yaa ngi ci jàng ñaata yaa ngi ciy jàng lan muy faatihatul kitaab nga ci jàng lan mooy faatiha mooy alhamdulilah rabil alamin arrahman rahim moom nga ci jàng pëlimi rakka ba mu jeex nga jàng saar bi ñuy wax alam nashrah alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladi anqada zahrak ba mu jeex nga jàng ko euh, trois fois soo paree nga teg ci saar bi ñuy wax euh, qul huwa allahu ahad nga ciy teg moom tamit trois fois ba mu jeex qul huwa allahu ahad samad ba mu jeex trois fois kon lii mooy naafila cinquième nuit bi incha allahu taala ma jaara ci nga dégg ko premier rakk bi ak deuxième bi ak troisième bi quatrième bi yëpp benn bu nekk yaa ngi ci jàng faatihatul kitab muy alhamdulillah nga teg ci suratu alam nashrah trois fois teg ci saar bi nga xam mooy qul huwallahu ahad trois fois lii mooy naafila bës bi ñu dem ci suñu plus muy li nga xam mooy nasiha bés bi incha allahu taala di cinquième nuit ci ramadaan bi jàngoon nañ fi ay dénkaan jëm ci wàllu muñ jëlaat nañ li nga xam moo jëm ci nit kii muñ nan lay muñee ak kañ lay muñ mbokk yi tey ñu ngi jël leneen lu xam ne mi ngi jëm ci wàllu mer mer parce que mbokk yi ku miñ muñ ku nekk rek Euh, tubaarkal danga nga mën a affronter li ñuy wax mer tey suñu dénkaani mu ngi jëm ci wàllu mer dafa am benn yi bu baax bu ñëwoon ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa rasulallahi man dama bëgg rek nga dénk ma lu xam ne su ma ko defee sama lépp baax waaye su ma ko defee rek am aljana fii am aljana yowmal xiyaam allahu akbar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko benn baat mu ne ko lan la mu ne ko la tardab wala kal janna ndeysaan mu ne ko fexeel ba li ñuy wax mer dee ko rocci sa xol di ko sànni waaye rawatina moment bii nga xam yaa ngi ci ramadan nga bañ a mel comme am julli sekk rek waaw bu bëccëg bu jotee daal ba naaj bi tàng wala ba purox gi wow mar nga ku la jege nga def bu ne jàmm nga def ko muy ay mbokki loolu du am koor yonent bi nee na képp ko xam ni yaa ngi euh, fexe ba luy mer nga daw ko ba doo mer wala soo meree sax nga wann ko comme la alquran xoon wal kaazimina al sax ñi nga xam ne bu ñu meree dañ koy nëbbu waaye dañuy rocc mer mi sànni géej loolu mooy jikko jullit kon daal mbokk yi laa taxdab wala kal janna ba suba ci heure bi beneen naafila koor ak seen mbokk Oustaz Habib Socé asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.